nga xam nekk moo fa nga xam complexe déclic mu nek li nga xam nekk expert en communication mamitam itam il va nous expliquer de tout petit peu jëm situation bi nga xamni tam Sénégal mu ngi koy dund jamono ji donc da nga koy essayer dal di li nga xam modi moo jël ni si li nga xam nekk bu mu jokkoo bi mu daal ñuy wax décision bi nga xamni tam Sonko jël na dal di engagé li nga xam nekk justement bataille judiciaire bi ma xam dina ci am ak li nga xam nekk ndam car xam Ousmane Sonko nak yag na ne gëmul li nga xam que Modi justice sénégalaise est-ce que euh, li nga xam Modi justice la mettre devant ses responsabilités bordelis li lii mu daal koy xaaroon fa nga Cour suprême donc on nga koy dans euh, sans plus tarder Makhtar Fall euh, directeur général du complexe clics mais aussi expert en communication alors Matar, ñu lay nuyu bu baax baax baax di la ziar nga yi.

iskaw naa xawul moom tuddee noonu euh, su ma jumee nga rectifier ma euh, kenn ku dem ñu forcer la à ce nga daal di quitter réew mi c'est-à-dire un un exilé de forcé. waaw mmh. j'avoue que mën nañ ñu boole ci ñi nga xamante ni dañoo génn réew mi pour bañ nekk ci ay torof torof. Mmh. loolu moom euh, dëgg la waaye boo seetloo tey Sénégal situation yi mu nekk. dañ naan duñun rek waaye dëkk bi moo doy waar li waa ji doon wax. Hmm. naan day fa dem julli ji di laajte imam ratib bi ñu ne ko imam ratib bi jël na bato ba ma nga yoonu Nicaragua ba. Hmm. l' Espagne aujourd'hui les États-Unis presque accueillent tous les jours entre trois et quatre bateaux donc mille et quelques Sénégalais par jour pratiquement. ok day wane fi situation Sénégal bi toll. Hmm. ñun nag Sénégal bi nga xamante ni fa la ñu jàngee màggee fa yaroo fa. amoon fa ay teranga góorgóorlu ba tegam lu bëree bëri foofu duñu wax ni moo euh, duñu wax ni moom rek ba kaidam koy dem waaye demoon na ba preske ni un Sénégal presque invivable bu fekkee da nga bëgg garder say dignité hmm. nekkoon benn dëkk boo xamante dafa doy waar lool bu fekkee da nga bëgg a bañ a ngeen baal hmm. ci expression bi mais hmm. nekkoon na dëkk tamit liñ daan wax lueur d'espoir biñ daan am muy benn yaakaar boo xam ne daan nga ko am ci mi alors euh nekk lu am solo exactement day ci si tolluwaayu réew mi euh, Matar euh, euh, jëmono ji tout d'abord da nga koy daal commencer ak Sonko bi nga xam ni itam moo daal di enclencher ay bataille judiciaire exactement comment le comprendre Sonko bi nga xam ni peut-être waxoon na ne musul am confiance yoon ak wàllu yonal pour yow li mu dugg euh lan moko ko si li nga xam ne que Modi di inspiré sabab lu lan la su nekkee yaa ngi dem fo xam tam am fo confiance Mhm. alors bon technique les gens ont des quand quand on ça, ça le décor tout le temps. Mm. que qu'on n'a pas n'a pas confiance à la justice pourquoi nous dem vers la justice. qu'on n'a jamais n'a jamais indiqué le chemin de la justice madame Moussoul wax ni du dem justice aw ma confiance justice parce qu'il a mené sept plaintes que depuis pratiquement 2016 le a commencé à déposer les plaintes. Mm. Euh, contre le gouvernement contre la machine juridique contre la machine d'État yàgg na leen planté waaye li mu daan wax ma confiance mooy da leen di wax man dinaa def li ma war. bu hmm. yéen Sénégalais yi may wax confiance ci justice bi CEDEAO yéen ñi may wax que ni man aw confiance suñu justice le monde entier bi ma aw confiance seen justice lii moo waral ma ne hmm. confiance seen justice. Hmm. parce que day am loo un ne danaan fang ne daj nit mën see teg bët ma def ci ay plante def ci jéego yu war def procédure yi na mu waree mais vous verrez que donc les résultats restent toujours les mêmes un silence assourdissant un silence honteux dans un royaume d'interrogation hmm. loolu mooy li doy waar loolu mooy li nga xamante ni moom la Sénégalais yëpp di gis tout le temps moom la réew mi àdduna bi yëpp wër nga këpp di gis tout le temps moo tax moom muy dem vers ça mais comme ni mu ko waxee et moom il n'est pas le seul ñi xaw a xam tuuti kim jàkkaar loolu xaw a xam tuuti il a vraiment la seule capacité de, transformer nos fondamentaux à de villes personnalités et à de villes donc euh, autorités confiance c'est mu ah parce que avec ce qui est extraordinaire moi, il a cette capacité-là de transformer les gens. Tu vois, tu hmm. verras un ministre, un professeur agrégé, machin, tout ce qui tourne autour, euh, il suffit juste qu'il le Macky Sall pour devenir donc l'une des villes autorités de ce pays-là. Tu verras le juge, tu verras le procureur, tu verras le commissaire. Aujourd'hui même, de petits gendarmes ou bien de petits policiers, auparavant, ils, il inspiraient confiance et ils donnaient donc rigueur. Hmm. et vigueur. Hmm. aujourd'hui dans les gis que ni dañ leen di dugal ci les scènes ni bu ñu leen tegalee discours yi tenir ça, tu as honte tey keroog damay seetaan Ismaïla Madior Fall mu koy wax lool. Mm. mais li ma gën a jaaxal ci waxam mooy danaan ok. Mm. la justice il faut laisser au juge maanaam tout le sale boulot nga xamante ne tey da koo jël endossé ko waroon ko exercer wane ko euh, gàccal ay njabootam gàccal ay ay ay doomam gàccal leneen leneen ak leneen boo waxee mu ne dama koy delloo ci juge bi. tey qui ce juge là qui va trancher, donc qui va dire le droit, qui est ce juge-là, qui aura même l'audace, l'audace, je dis bien, de de, de, se départir de cette machine-là. Hmm. bonne juge, le bon procureur, là, hmm. mais naturellement, Ousmane Sonko, connaissant carrément donc son adversaire, connaissant carrément la situation sénégalaise, naturellement, savait que justice de duma sama aucune confiance à l'endroit de cette justice là c'était quelque chose de vrai alors donc japp nga ni loolu tax mu dem ci jeex li nga xam nekk moo di ak mais aussi am ni jàpp ni euh, day mettre justice devant leur responsabilité peut-être pour mu daal conformer ay discours am euh, ànd ak logique am noonu la tamit. effectivement donc mom la wax hmm. léegi c'est-à-dire hmm. il met la justice devant le fait accompli. ok maanaam dama daan wax sénégalais ni Sénégal amul justice dama daan wax sénégalais les juges sont corrompus dama daan wax hmm. sénégalais que il y a des procureurs qui ne sont pas sérieux léegi yamul ci ay wax rek da leen di jox dossier fang nga des années d'université en hmm. justice en droit pour hmm. comprendre ça pour hmm. mettre sur des choses c'est des cas pratiques de la première année un juge il a 20 ans d'expérience dit-il ou il est agrégé 40 ans d'expérience dit-il il préside même les concours d'agrégation donc autour c'est-à-dire en Afrique aujourd'hui tu le mets dans des cas pratiques de la première année il peut tourner sa veste comme jamais vu. si hmm. c'était écrit il va l'effacer si c'était dit il va le dédire si c'était hmm. vraiment euh, des paroles Il va que sa ay donc effectivement c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui dafa jommal Sénégal dafa jommal àdduna dafa jommal donc vraiment képp kuy ndaw képp kuy jàng droit damay ton di wax que ni il faut comprendre si vous êtes apprenti juridique il faut comprendre si vous êtes étudiant en droit mm. que pendant ces douze dernières années de règne de Macky hmm. Sall tout ce qui s'est tout ce qui s'est passé en justice et en droit ne peut pas servir Mm. ne peut pas servir de jurisprudence hmm. maanaam quel mënu ko utiliser waat bu fi Macky Sall jugee parce que kafarnum hmm. juridique la parce que lequel kenn mësul xam la ci aduna parce que ay wedd di wax yu fondamental la parce que ay changement yoo xamante ni doomu aadama xaaru ko ci gouvernement bi tey situation vaudevillesque bi Sénégal nekk situation bu difficile obscure bi nga xamante ni fa la Sénégal nekk yëpp mais ñëpp xam ni benn nday mbill rek la am muy Macky Sall na ñu yàlla àtte moom alors dañu ñëwaat exactement si li nga xam ne moo di Ismaïla Madior Fall euh, alors mais matax ñu gis ni euh, DGE mu daal di gànkal li nga xam ne moo di Ousmane Sonko fiche de parrainage yi ñu bëri ne neen loolu nekkul habilité euh, il reste au conseil constitutionnel pour daal déduire exactement ku nekk ak kan moo nekkul li nga xam ne moo di candidat tout d'abord l'acte bu DGE def allant dans ce sens anticiper li nga xam ne moo di cette radiation qu'on en parle tout le temps jëm bu Ousmane Sonko jàngat wi lan lay doon combien de forfaitures faudra-t-il pour que les gens ouvrent les yeux hmm. Combien de magouilles faudra-t-il pour que les gens ouvrent les yeux hmm. Combien de personnes tuées faudra-t-il Combien de juges de de c'est-à-dire de ce qu'on appelle administrateur civil madame nga nekk il faudra que nous nous def une forfaiture pour que nous nous comprenions. Makissal a Macky Sall a tout sauf des citoyens. Hmm. il a tout sauf des gens modèles. il a hmm. tout sauf des autorités et des administrateurs civils il a tout tout tout ce qu'il faut sauf ni Sénégal là parce que ce qui est difficile mooy Macky Sall le Sénégal. Hmm. si vous prenez l'exemple donc de DGE, euh, comme Direction Générale des Élections. Hmm. C'est ce même monsieur qui a, été, qui a été invité il y a encore un mois. On lui avait posé la même question. Est-ce que vous êtes habilité à ne pas donner ou bien à endiguer le chemin à un candidat et sa réponse a été tranchante, sa réponse a été extrêmement claire. Hmm. Que ils ne sont ni habilités, ils n'ont aucune possibilité d'endiguer le chemin à qui que ce soit. Mais pire, celui qui, c'est-à-dire à qui, mm. il est sous la coupole donc du, du hmm. ministre, de la hmm. Justice. Hmm, waaw mi ngi nekk ci mi ngi nek ci mi ngi nekk ci ci ci waawu ci waawu ci mi ngi ci ay waawu ministre de la Justice ak ministre donc de l'Intérieur mais parlons de lui la même chose il y a encore deux semaines il y a encore trois semaines a invité encore dans une télé de la place mu joxe discours bu limpide avec ce type de répétition qu'il a l'habitude de données. Hmm. wax wax du l'air, du mou waxoon tey ñu inviter ko il y a encore aussi deux jours trois jours Nous dédire tout ce qu'il a eu à dire xam nga Sénégal fi mu toll boo wax sa xol sax day yëngu. Hmm. boo wax sa xol sax day yëngu parce que li Macky Sall def ci Sénégal D'une dund ba d'autres nous amati président bu ko mën a yàq ci doomu aadama wallahi parce que ni ils n'ont pas compris. xam nga Macky Sall li Sénégalais la nit hmm. parce que man je ne suis pas dans les débats juridiques article ba article mais évidemment tout le monde connaît ça wax tuñ ko mais li may wax mooy li Sénégal li Macky Sall bëgg a xañ Sénégalais yi te xam yi ko xam nga mooy lan. Hmm. mooy le droit au choix le droit à la liberté gis nga boo demee dans les pays occidentaux wala bu mu ci mënti nekk nga dem ay Canada dem.

tous les droits et tous les pouvoirs d'un citoyen de ce pays-là. Choisir un Ousmane Sonko violeur, voleur, diffamateur, quoi que ce soit. Nous, nous, qui nous voulons choisir Loi, droit, nous avons possibilité boobu nga yeewu sa dëkk nga possibilité boobu que ni kii lañ bëgg choisir quel que soit le nom que vous lui avez collé loolu dafa doy war loolu la Macky Sall njëkk bëgg xañ tout plus de 80% d'une population qui te dit non et qui veut choisir un autre et tu es minoritaire nga utiliser deux ou trois personnes si nous hmm. vivions hmm. dans un pays de droit dans un pays de loi dans un pays de valeur ces deux personnes là n'écheraient même pas des chiens parce que l'on est dégueu. parce que nous, sommes au Sénégal nous sommes def Sénégal Nous sommes au Sénégal. Donc, des, des, juristes, professeurs, spécialistes de classe exceptionnelle, comme dit-il, l'autre, premier ministre. Euh, euh, euh, mais euh, mais quand même mais est que Matar acte Sonko fichier yi